lalal la ko booni mais mau na tal feeraay nag moom pare na bu yàgg diggante booy xule bu tiwaawaan ak ki nga xamee ni présenté ñaari bëri loxom nga ni am bu ngeen bu baax eh, ay yu bëri booy xulle bu Tiwaawan mi ngi noonu moo yëkkati loxoom ñaari mbër yaa ngi euh, jàkkaarloo arbitre mi ngi leen di wax li nga xamante ni nii loolu la làmb santaane ak li nga xamante ni nii làmb santaane woo yaakaar naa nag lii rek combat bu neex la waaw waaw Abdou mel na ni nag ña ngay waaj a dugg nag ci combat ki nga xamante ni mooy Feeraay ak Boy Xule ci gàttal Feeraay moo njool Boy Xule moo gàtt doon daama waaye yàgg naa dégg daama yëgul njool arbitre bi joxe ne coup doobaa ba waaye ah Feeraay nga di tekk taxaw. takkul ay gàllaaj yu de. non xam nga léegi ala Modou moo xew léegi ala Modou Lo dafa xew. te dama gisee gars yi commencé koo def ba léegi ñu koy def ñu bari dañuy daan yéeme na nag feeraay ndax dañ koy delloo ca feeraay wala day jël ndam li yóbbu ko fi nga xamante ni a ah mooy mooy mooy dëkkam wala booy xula day yóbbu ndam li tuwaawan jar naa laaj. mooy laaj boo xamante ni yàggatul dara léegi ñu xam si dara. waaw lamp yi nañ leen attention yee saay projecteurs yi bu doonee tay sa wet dootoo gis nañu def ndànk diggante feeraay ak booy xule. ña ngaa waaye leewaatoo bi dëgëral xaw na ko xoccate enchaînement yëkkati na ko laale na ko yëkkati ko dëj na ko laa ilaha booy xula daan na feeraay booy xula yóbbu na feeraay ca feeraay ja eh, waay waay xanaa feeraay feeraay ba ca buntu ba ca buntu sëbi xutaan ah feeraay jugal waay boo daanoo da ngay wéet combat bi yàggul dóor dóoru dëgër amul maanaam fu ñu fokkantey baaraam fu ñu lewantoo fu ko nee sësu daal di ko yëkkati dëj ko ni kon kuy dëj añu añub sëriñ noonu la ko defee. ni daf ko de. non xam nga bu arbitre joxe coup d'envoi bette amul leewaatoon nañ bette amul xam nga parfois dox si main wala nga xaw a régaler xel ci soog a avancé dina yóbbe mbër lu bari moo ko yóbbe chute ñu dem tuuti ci kanam. ah doy na waar trop doy na waar mi ngi noonu kuy daanu da ngay wéet ñu ngi koy jaajëfal bu baa moom Diop. mbër jugal champion nga lii mooy bëre.